dal leen jàmm yéen ñi seetaan ci sunu bës CFASD tey nag ñu ñëw siyaare si sëñ Moustapha Mahamadan xam ngeen ni foo leen gis ñuy néew doole daara rek am na ñoo xamante ni jóg nañ ngir yëkkati daara mu soqaliku jëm ca kaw wax dëgg yàlla tey nag uh, waaye daayira xidmatul xadim di siyaare ki nga xamante ni mooy Serigne Moustapha Mahmoudan di ko xamante ni wax dëgg yàlla daara rek moo ko yitteel ñu tey ñu def benn siyaar boo xamante ni bu rëy la ñu ànd seetaanandoo vidéo yi yéen ñëpp fii ci sunu Buzz TV. waaleykum wa wa barakaatu. ñu leen di nuyu leen siyaar di jiital ci nuyu bi sunu sang bii toog di seex Serigne Moustapha Mahmoudan di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te wér Mbacke Balla ñun de ay jaam jamaat lañ. waaye li ñu def nii du ñun lépp yow la Mbàkke ndax ndax yaa ñu yow yow yaa ñu jiital ci mbooloo mi mbaa mbooloo mi ñu jiital kenn faqataloon ci faqataloon ci Mbàkke te ñëpp ñu ngi ànd ak loo xamante ne nii ku ci nekk am na yéene jëf lu ëpp lu mu jëf waaye lépp Mbàkke yow la ndax ndax ndax sag mbaax ak sag gore ak sag ak sag tabe te te de mbooloo mi fu mu toll ni mbake ñu ngi lay sant bu baax a baax mbake di la xamal ne am nañ yéene lii ñu jëf lu ko ëpp fuuf mbake di la xamante ne tamit mbooloo mi ñu nekk Ndakaaru ñu nekk Mbooro ñu nekk Thiès ba ñu nekk bitim réew ak ay sunuy magum taalibe ku mel ni señ sëñ sëñ mbay jaw sëñ alin Diouf Cheikh mbay Yaraax ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne nii bëgguñu sax ñu tudd seen tur ci mbooloo ñoo xam ne saa su bés bi njotee rek dañu ciy jàppale bu dee Mbora suñu mbokk taalib bi moo fa nekk Pape Modou Diakhaté te jëf-jëf ju am solo Mbàkke du tayee ci di soññ ci bés bi waaw bu dee Cees Serigne Gueye léegi la mu mujjee woo yónnee ci lu takkoo takkoo takku Mbàkke waaw bu dee Touba gii magum taalib mii fa nekk Serigne Mahamadan Sey moo fi nekk di ci jëf-jëf joo xamante ne ni doy na waar jiital ci ay gone yoo xamante ne gone yu am passif bu ñëwee fii ba mën a toog fii muy wis te taw dalu suñu kaw ñoom la ak ak jël seen ñaq di ko ci def mbàkke ndakaaru gee ñu nekkit gone yi ànd nañu ñun ci àndinu rafet waaw moom laa leen di wax sa saa ne ma ne leen mbooloo ma bu ñuy ànd dañuy moytu ànd jeyante wéetoo jëwante loolu baaxul ci mbooloo waaye ñu ngi lay xamal ne de mbàkke mbooloo mi yëpp nasu nañ topp ci sama ginnaaw gi ñu ànd di liggéeyal Serigne Touba ci sa ci sa jëmm ji mbàkke te am nañ yéene it di jëf loo xamante ne nii lu ëpp lu ñuy jëf mbake Mbàkke buñ sañoon de mbake ay oto la ñuy gaare fii wàcce fii dund boo xamante ne nii at mi yëpp saa su ne ton bu ne dañ ko mën nañ ko dund ci daara yi ñu la koy seere di la ko xamal mbake daal mbooloo maa ngi nii sa ginnaaw di la ñaanal nag nga sut sa baay bu baax ba sëriñ Mahmadan Jobbe aw fan waaw Tuubaa gi it de ñu lay seeral ne soxna ma awa Mbàkke bii de foog ñu tudd turam ndax da cey def ci bis bi loo xamante ne nii Mbàkke foo na suñu njor lim ciy def bu bis bi ñëwee dañuy yéem sax ñun lépp loo xamante ne lii lu jëm ci waañu la jëf na ci bu jëf ci loo xamante ni romb na sunu njort Mbàkke baal la te nag mbake foog ñu seereel la ko ndax loolu jëf la joo xamante ne réy na ci ñun waaw te da koy def ànd ceeg xol bu sedd guy mbake ba ma ko wooyee ne ko mbake day ndugg mi loo ko xalaatee mu ne ma yoroon naa bu daaw ba daal koy génne na ma dinañ ko topp xool ko mam mel na ma na ngeen ko bëggee dama naa ko may dina ma woowaat wax ma nu muy tëddee waaye mbake bi ma ko woowaatee mu ne ma def naa ko addee Serigne Touba ndax damaa war a liggéey comme yéen ñu lay seeral ne mi ngi liggéeyal Serigne Touba ci ci mbooloo mii waaw di ko ñaanal nag yàlla ba ko ko xelam bàyyi kook yow ngeen ànd liggéey Serigne Touba na mu na ngeen ko fa bëggee Mbàkke ci barkeb Seex ma di dina seeral ne daal mbooloo mi daal mbake ñu ngi nii amul ku ndaw ci biir ñëpp jëf. ñëpp jëf Mbàkke di la ñaanal nag nga yàgg fi lool te ànd ak wér waaw ñu yàgg topp sa ginnaaw ndax am nañ yéene ju bari joo xamante ni mën nañ bëgg nañ koo liggéey Sëñ fi fii ci kër gi Mbàkke ak daara yi ndax xam na ne yow dara ñorul la lu daara kon daal ñu ngi lay seeral ne di ko seeral mbooloo mi kii mooy sunu sëriñ mooy sunu kilifa lum ñu digal ñu def ñaanuñu yàlla nag mu ñu tere ñuy mu ñuy tere yàlla bu ñu yegg ak fu mu ñuy tere kon ñu ngi ñaan daal Mbàkke nga yàgg ñoo digal ñuy def te yàlla boo ñu seen loo xamante ne lu ñuy teree la kon ñu ngi lay ñaanal gudd fan ak wér yàlla balaak sama xel li nga yéene liggéeyal suñ tubaab Seex Masàmba nga def ko na nga ko bëggee Mbàkke topp sa ginnaaw waaw sëñ Mahamadan Sey ñu ngi lay ñaanal yow it yàgg sa mag ju baax ji ngeen ànd gudd fan ak wér ndax xam na ne mbooloo bu ñuy dem foog mu am ay mag yu ci nekk waaw te yaa ngi ñuy jëmmal di ñu seer di ñu di ñu gunge waaw Alioune Diouf mi nga xam ne mooy fay magum taalibe ak ak rakkam di di sëñ Abdou Diouf ak i rakkam Mbàkke yàquñ dara ci mbooloo mi ndax daara ak daayira bi yëpp lañu àndandoo Mbàkke di ci def lu baax a baax a baax bitim réew it soxna Ceena nekk fa ak i di jàpp ci liggéey bi liggéey bu baax a baax mbake kon daal Mbàkke ñu ngi lay seeral ne ñi nga xam ne ñoo ne bitim réew ku mel ne Serigne mbay Samb sëñ Ousseynou Sarr ak ñeneen ak ñeneen ñoo xamante ni ñi ngi def te rek tax te lépp def yaa tax ñu koy def Mbàkke ndax buñ la gisoon nga mel na ne duñ ko jëf ndax buñ nee leen suñ Moustapha la ñuy liggéeyal dañ ciy sawar sax Mbàkke di ñu laaj ba bi kañ la kon ñu ngi la koy seereel bu baax a baax Mbàkke waaw sant nañ bu baax Mbàkke jërë ngeen jëf ñu gàttal foofu. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu mbokk ñoo ngi leen di nuyu. te leen siyaare te leen balu àq leen balu àq di leen sant bu baax ci taxawaay yi taxawaay yi nga xam ne dañ ko ànd di ko liggéeyal Sëriñ di ko liggéey ci toolu lislaam di ko liggéey ci tool boo xam ne su fekkoon Sëriñ Tuubaa daa teewal boppam amul lu muy santaane lu jiitu jàng alxuraan ak jàngale ko ak yar njaboot gi loolu nag su fekkee yàlla daa dogal yàlla taw feexe la ànd ak sëriñ bi muy sëñ Moussa Mahmoudan mu yëngu jëm ca loola képp koo xam ne yàlla dalaa dimbalee nga jël sa ñaq di ko jëmale ca loola day mel ne yàlla moo la taw feexale sa ñaq woowee war a dem foo xam ne bu sëriñ Tuubaa teewoon nga di ko defit waaw góor rek la lay wax kon war noo sant bu baax a baax baax baax ndax lislaam kat dara jiituwu ca xam te xam nag dara jiituwu ca alxuraan nekk sa bopp ndax alxuraan baatu xuddan boobu jub rek la ci sunu borom nga xam ne lu alxuraan bari bari xuddan jooju moo tax ñu koy jàng di ko mokkal di ko bind mbaa ku ko mokkalu it dégg dégg yi jooju te tege ci yoon wa ginnaaw nag yàlla danoo taw feexale kenn ko ne war war a am bunt boo xam ne mooy sa bunt sa diggante ak Serigne Touba ñun ñii ñëpp ñu ci ëpp sëñ Mouhamadou Diobé doon bunt ñu toppoon ci moom gis nam doon doxe doxin wu rafet lépp laa ci lislaam yitteel ko ba ci jumaay ji mos ci benn bés bu dul bi mu demee ba wéradi gisatuñu ko sëñ Moustapha Mahmoudan mii mel na ne magul ci njaboot gi waaye nu gis muy doxe doxin wa nga xam ne moom la sëñ Mahmoudan Diobé daa doxe nu topp ci gannaawam te topp ci sëriñ mooy mu di la digal ngay def mu di la tere ngay bay mu tege ci yoon nga topp ci gannaawam bu doxee ab diir bu geesoo gisu la ne sama kama toppoon sama gannaaw de gisuma ko bu ko geesoo gisu ko taxaw nekk ko fu mu jëm ëllëg jëmale ko fa nit ki nag boo bëggee fu mu geesoo ëllëg gis la da ngay tege ci yoon moom tege te moom mi kenn ku ne xam na ne tege na ci yoon ndax ñi mu seqal yoon wi ñëpp kenn ku ci ne am na foo teg te dara warul ko lu weesu tege gum tege ci yoon nun ñii nga xam ne dañu ne jàpp ne nun nooy magi euh, daa kër gi kenn ku ci ne ñëpp bokk ñu ñàkk ay xel am na ci ñoo xam ne am na ñuy xel yàgg nañ ci yoon wi kon yaakaar naa ne buñ dee ànd daañu ànd ak koo xam ne ëllëg si biir dina leen mën a gindi bëgg ku ñu gindi rek moo tax ñu topp ci gannaaw te jàpp nañ ne itam am nañ ci yaakaar wala yaqin ju wér ci ne ku ànd ak moom dana la àggale fa nga bëgg a ëllëg te loo rek mooy li ñuy wut kon ginnaaw ñun ñëpp ànd na moom nañ déglu ay ndigalam te bàyyi ay tereem te fas yéene sax ci bëgguk sëriñ bi te xam ne ku ko def li nga bëgg dang nga ko am li may faral dénk gone yi nag ñun ñëpp ay gone lan dama leen koy dénk mooy adduna ku fi ne faw nga bëgg dara boo dee commerçant boo dee borom métier boo dee lu mën a doon man nag li ma leen di wax dama ko dund boo xamee ne maanaam fas nga yéene loo wax ak nit def ko loo bëgg da ko am te loo bëgg loo am da ko jariñoo waaye soo fas yéene maanaam nag loo wax ak nit doo ko def loo mën a am doo ko jariñoo te boo ko amee tey boo liggéey doo ko am loolu dama leen ci misaal benn man rek moo xam ne te taxul woon mu jóg loolu lépp bëgg nu doolee lu ci jub rek moo ko waral man ba ma tàmbali dafa téerig léegi yàgg na waaye at yi nu weesu am naa ku may jëflanteel Dakar koo xam ne ñetti at jëflante leen ko ay millions waxtu wane ci téléphone am laa koy am waaye waaye mosumaa gis am na ñetti at ren ji la ma mas fekk ci jumaa ji ku ma xam nuyu ma mu ne ko kii Mouhamadou Seye mu ne ko waaw mu ne ko moom de dañu jëflante lu yàgg te mosunoo gisante waaye keroog bi mu agsee sama place dafa ma ne bu fekkoon am naa milliard soo ma ko laajee ma jox la ko jumaay Ndakaaru bu ñu koy ubbi daaw am ay dongo yu dem fa moom ne ko dañoo bëgg ay sijaada waaye doon seenu boole mu jox leen lañ bëgg lépp ñu jaay ba ba événement ba jàll ñu fay ko mu door maa woon ne ma ñi nga fi yebaloon de fay nañ ma te fekk yebal ma leen te lool su xamoon ci man leneen du ko def loolu leneen dama bëgg nun ñi nga xam ne dañoo ànd ak sëñ Moustapha te sëñ Moustapha ñi ko xam ñëpp xam ko ci jub rek nga xam ne lu mu bëgg ci dëkk bi tey bu dee guddee du si asamaan du bu dee bëccëg jant du so dara wërlu ko lu ak jub ndax bu santoon Mbàkke ba noppi nekk ci leneen it ku mel ne Mouhamadou Tey moom bu ko tegee maanaam damay am fu ma taxaw keneen it noonu kon nan góorgóorlu ci ak jub ndax bëgg nu jub rek moo tax nu topp ci gannaaw mu bëgg ñun ñëpp ñu tege ci yoon rek moo tax mu nekk suñu kanam di nu ak di nu jubbanti liggéey bii ñuy liggéey nag moom na ngeen xam ne liggéey bu yàlla gërëm la bu yonent bi gërëm la bu sëñ Tuubaa gërëm la ndax ci daara rek la dellu te sëñ Tuubaa yar ak jàngale mooy li ko gënaloon ci dëkkam bii kon ko koy def ku ne ku ko ci jàppale ku ne am nga tawfeex teeg ëllëg maa ngi jégalu nag ndax man dama baaxoowul mën a wax waaye nag bu ñu ma joxee ndigal ci sama kër sama kanamu kilifa ma xam danaa ko wax waaye li ma li ma li ma leen di digal daal mooy noonu góorgóorlu ci jub mooy li am njëriñ tey mooy li ko am ëllëg yàlla na ko yàlla defal ci barki Seexul Xadim barki sëñ Mahamadou Jobe barki sëñ Moussa Mahamadou barkeb xësidaat al alquran ji nga xam ne man mooy sama bi yëngu yal nu yàlla defal ak jub saayir ak baatin barke xësida yi borom asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu sëriñ bi nee ngi mi ngi sant yàlla bu baax tey julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam tey santaat sëriñ Tuubaa mi nga xam ne muy sunu yaakaar tey ak di nuyu ñëpp di ñaanal Cheikh Mouhamadul Mountakha mu yàgg fi loolu te wér ak mboolem kilifa yëpp di jiita ci nuyoo bi sëriñ Mahmoudan Seye ak sëriñ Omar Seye nga xam ne ñooy magi jataay bi seeni wéyjur àndoon ak sëriñ Massamba ba ràññeeku ci moom lool ñëpp xam ko kon seenu ma ak seenu mbaax moo waral ñu dikk ànd ak yéen jataay bi waaye bu ñëwutoon mu doy sëkk waaye ñëw gi nag day dolli lu bari bu ñu toogoon te waxuñu sax ab soññee la rawatina Serigne Mahmoudan kàddu yu rafet yii tamatale nga xam ni ñëpp ci mën a jariñu bu loolu jàllee ñi ngi nuyu mbokk taalibe yëpp di jiital Serigne Ñang ak mboolem ñi nekk Ndakaaru yëpp Serigne Fallou Cissé ngi ànd moom. bu dee ci jigéen ñi soxna ceene di seen jëwrin teew na ak waa Touba yëpp boo tuddee Mahmoudan Fall mi nga xam ne mooy jëwrin xale yi gone yi mu doy sëkk waa Mbooro ci njiital muudu jaxate ak mboolem ñi bëggoon a teew ñëpp te ñoo teew nee na ku mu tudd lit moo ngi lay bàyyi xel di la jot jottali ab nuyoo muy góor muy jigéen muy mag muy ndaw di am mbégte bu baax nag ci seen jëf jii ngeen jëf te lëggeel Sëriñ Tuubaa rekk tax ci bi ci biir tooli lislaam ndax sëriñ Touba ku nekk xam na ni ab yëngoom bépp moo doonoon fexe ba jëriñ doomu aadama yi njëriñu doomu aadama nag la ca gën a rëy mooy xamlu ko xam-xam yëpp nag ba ca gën a rëy mooy xam alquran kon nag Serigne Touba mën na noo wax ni dundal alquran bokkoon na ci liggéeyam yi gën a màgg te gën a rëy ba tax mu ràññ ko lool lu waay gàtt-gàtt ab dégg ak xam-xam dégg ñu ne Serigne Touba day ku ko daa jox alquran du ko yemale keneen ku mën a doon loolu da ciy joxe tuuti am nettali am na donga boo xam ne mum mi daa woyofoon lool mu ñëw njëriñ ni sëriñ bi laa bëgg a gis ñu ne ko ah sëriñ bi yow defe nga dañ nga mën a yegga mu ne ah man de moom laa bëgg a gis ñu xaw koo cof fekk sëriñ bi xam na yàlla xamal na ko ko nes tuut mu ubbi ña jege di nuyoo kooka jox loxoom sëriñ bi ba mbooloo ma wàññi ko mu jébbal ko téere ba sëriñ bi nag joxaat ko yitte ju kawe kawe ne ko ku bind téere bi mu ne ko maa ko bind fekk na bi mu nuyoo sëriñ bi loxo bi dafa bay ba daar sëriñ bi ne ko loxo bee bind téere bi mu ne ko waaw Mbàkke mu ne ko noo ko bindee mu ne ko dama doon def su ma xëyee tool ba wàcc mbindu lu ca doog a gont loolu nag def ko tàngoor moom sëriñ bi mu ne nañ ma wol mboolem kilifa yi fi jege yëpp ba ñu teewee mu ne leen wax naa leen ba tey bàyyi leen sàll yi ngeen téye ci àll bi defe nga ni ku mel nii moos warees na koo def loolu lenn lu dul jàng ak jàngale <laughs> loolu kii wàll nga xam ne da koo tàngaloo la ko tàngaloo borom alxuraan mu nekk borom alxuraan ba noppi ñu téye ko ci àll bi di ko liggéeyloo te it daana wax ni soxna Fatima Samba Diop baayam di Serigne Samba Assu ak kuñ daa wax Serigne Mor Dior mooy bàyyi Serigne Moustapha Njekk mi daan ànd ak Serigne Cheikh Fatma ca Touba ju njëkk ja ba ñu dikkee jébbalu ci Serigne bi. di ay waxambaane yu ndaw sëriñ bi laaj leen seen aliwu fu mu toll ñu ne ko mokkal nañ alquran mu ne leen ndaw lu mokkal alquran day xaw ma ci liggéeyloo defar dellooy bokkam laa ci xam ne leen toog leen di jàngal gone yi alquran te maam Cerno di leen jàngal xam maanaam alquran ak nituk alquran Serigne Touba noon la ko fonke woon ba tey ci pesub njëreem bi am na ñu bari maanaam ñu ca faatu waaye dafa am ñaar ñoo xam ne dañoo bokkoon ca daare kaamil ja nga xam ne nuñ leen daan denc nga xam ne defar ba day xaw a des waaye ñaar ñooñee am na ku ne ko sëriñ bi toog na ay fani fan bu wéetee ci biir bu koy jàmbat du ko tey naan la ma ci gën a metti mooy alxuraan ji nekk seen dënd ji rek moo ko ci metti kon alxuraan foofu la ko tolloon xasida yi it xasida goo ci mën a jàng néewaana néewaana xasida ga daanu te tudd ci alquran bariwul benn mu jaay ci digg tur wa baa mu junj ko te lépp day wane ak bëggam alquran kon kon nag sëriñ bi ku ne ci di ko jàngalal dongaam yi yaa ngi ci ab liggéeyam loolu nag li tax mu di ko wax ngir xamal leen seen liggéey bii dayoo bi ak tolluwaay bi ci soññeeb bisub alxuraan bi rek ak xasida yi mi ngi koy wax naan gépp jaamu yàlla ka koy def ak ka mu man koo def ñoo bokk benn wàccuwaay kon nag yéen bu ngeen yittewoo daara ji ba seen xel dem ci ngeen di dajale dundub donga yi seen kem kàttan kon bu leen sikk ñi jàngale alquran yéen a yem benn wàccuwaay lu ca ñooña am da ngeen ko ca am yal na yàlla nangu jëf yëpp kattanal leen ba ba li ngeen yéene def lépp ngeen mën koo def ci barkeb Sëriñ Tuubaa mi tax ngeen di jëf bu loolu jàllee nag ñu soññante tuuti rek Sëriñ Mahmoudan Sey sori na ci waaye mu dolli ci tuuti rek ndax li wax day mooy lépp ak njub ku ko am ñàkkoo dara ku ko ñàkk it amagoo dara sëriñ Abibu Mbàkke mus na ko dégg mu wax ni ci sëriñ bi la ko déggee mu ni ndaw day yaar la war a wut muy mucc ak jub bu muccee yiw wu dikk fekk ko fi bu jubee bu yiw wa dikkee dalak moom te bu daleeg moom faw mu dëkk ak moom kon ak njub mooy lépp nee na mi ciy soññee bu baax a baax ñu góorgóorlu ci kem kàttan baat la bu gàtt nag waaye boo ko saraan amu yaatu lool prix ma ca gën a gàtt mooy topp ndigal yi wattandiku tere yi ku ko sàmmonte rek yaa ngi ci ak njub tere yi moom nañ fexe ba wattandiku ko mut laxan bañ cee jege dara ndigal yi nag moom dafa yaatu yàlla it xam na lotug doomu aadama akuk tëleem moo tax li mu ko gàll ci lu munta ñàkk ñu koy tuddee ay farata bariwut yooyee nag sàmmonte ko yomb na bu dee mboolem ndigal yu baax yi nag ku nekk na nga ko mane rek kem kattan nga jéem ko ndax sax sëñ Mouhamadou Lamine Gaye mu baax ma dara wax ni ba ma xamee ne bu ëllëgee bis penc yàlla day teg ñaari balaas bii mu ci teg aw yiw bee ab safaan te bu ca wat rek muy noona ba ma xamee loola laa fexe ba sama balaa sub safaan dara bañ caa tege bu ko defee bu yiw ba lu ca tege rek mu wat ko kon loolu mooy primi nañ wattandiku tere yëpp ndigal yi nag luñ ca man rek ñu def ko yàlla nañu ci yàlla dimbali bu baax a baax te it maanaam ku toll ci liggéey mu bañ a xeeb benn liggéey te am ci yitte ak jom ak pësteef te xam ni jaam bi moom sabab lu rek képp la man waaye yàllaay dogal mooy sottal te lépp nekk na ci te lépp noppi na ca kon nag ñu liggéey fonk ko te rafetal ko yàlla nañu ci yàlla dimbali bu baax a baax Serigne Touba mi nga xam ne mooy sunu yaakaar nag lépp loo xam ne ay ndigalam la ñu koy sàmmonte kem kattan ndax dafa am yoo xam ne mooy reeni yoon wi te Serigne Touba da caa jaar jàngal nu ko. ba ñëpp mokkal ko mu doog nu koo bàyyee ndax ku ne xam na ni jumaay njëreem moo joxe ndigalal ñu def ko topp bi aw sasam ne góor ñaar fukk ak juróom-ñett jigéen juróom-ñaari dërëm ku ko mën na ko def ba loolee dajale giñ ko dajale ca tabax jumaay njaareem ji loolee da doon da doon jàngale aw yoon mooy lépp loo xam ne bëggati ngeen ko na ngeen booloo ba bu ca nekk jëfee aw ñaqam ngeen am la ngeen bëgg kon nag loolu yi dafa yaatu mboolem loo xam ne sëriñ bi da koo dégle ci la ñuy jëf ci alal baa ci doole lu ca waay man na ko def ndax mooy tax liggéey bi ñuy defal Serigne Touba ñu mën koo def te buur du ca amu yoon keneen du ca amu yoon te it nag day doon lu gën a barkeel lépp nag. ndax niñ ko baaxoo waxee juróomi dërëmi taalibe yi ak seen fukk ak ñaar fukk yi dajaloo ba def dara moo gën a am yaakaar de waaw kon kon nag li ma leen di sant di leen ko soññi lii liggéeyub Sëriñ Tuubaa la boo xam ne moog yéen képp ci yem ma leen di sant lu ci waay man na ko def ndax ab denc képp la jëf ji jëmul ci moom mii amulu ko njariñ ci saaxir lu waay jëf boppam képp la te bu ñu yeggee fa taxoon ñuy jëf képp ku jëfoon lu néew da nga ko rëccu da nga ko xeeb kon nañu farlu ci liggéeyal sëriñ Touba bu baax a baax mbay nag ci sa wewu tànk ku nekk kay sa bunt di sa jëwriñ ci yoon wi la muy woote mu jëm ci liggéeyal Serigne Touba kenn waru la caa man loo cay dolli nanga nga door ko caa dolli waaw. bu loolu jàllee ñu gën a àndandoo te gën a booloo te gën a bennoo ndax mooy tax lii lépp yem yomb ndax fukk ñu ànd di jëf dara day yomb lool. kenn ku nekk mën naa beru di jëf jëf ja lu mu bari bari bu mbooloo àndee mooy ëpp doole gën a yomb nee na kon moom ànd gi mi ngi koy santaane bu baax a baax ci góor ñi ak ci jigéen ñi te it ñu joxante cër bu baax a baax wormaalante toppante ku nekk kala mag nga def ko jëwrin ka nga mag nga jàppe ko rek digal ko yërëm ko teete ko gindi ko mi ngi koy sant góor ñi di ko sant jigéen ñi di ñaan yàlla ñu yàgg koo def te yàgg koo ànd te yàlla nangu lépp ci barkeb Serigne Touba jërë ngeen jëf yéen ñi ñuy seetaan di ñu topp tey nag gis ngeen ñu ñëw ci benn siyaare boo xamante ni sëñ Moustapha Mahamadan lañ koy defal ñu taxaw ki nga xamante ni mooy jëwriñu Dakar ji di sëñ Ñang mu xaymaal bis bi nan ni mu demee yëpp rek incha allah sëriñ Ñang waaw salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ngi leen nuyu den ziar fii ci daaray xidmatul xaddim bu sëriñ Moustapha Mahamadan sëñ Ñang moo leen di nuyu di leen jox seen wàccuwaay sëñ Mahamadan sant nañ bu baax Fall Sey Jóob di la xamal ne liggéey bii de bu yegsee fii ñu toll tey sëriñ Moussa Mahamadan moo ci jàpp waaw mooy suñu jëwriñ di ñu digal ñuy def waaw ñu ànd ko mbooloo mu bari nag waaw fii sutubaa Touba ñu am fi jëwriñ ñoo ne mooy sëriñ Mahamadan Diop sëriñ Mahamadan Sey mu jiital sëñ si njiitalul sëriñ Mahamadan Fall ndakaaru ma nekk fa ak gone yi ma ko àndal si njiitu soxna yi sëriñ soxna Ceenu Diouf bu dee ca ca ca ca Thiès Serigne nekk fa ak ñam fa àndal bu dee ca Mbour Pape Modou Diakhaté nekk fa ak ñam fa àndal ak ak ak ak ñeneen ñoo xamante ne nii ña nga nekk bitim réew di jàpp ci liggéey bi ku mel ni ku mel ni Ousseynou Sarr ku mel ni ku mel ni Mbaye Samb di nijaay njagambu di jàpp ci liggéey bi saa ne ak ñeneen ak ñeneen di leen ne daal liggéey baa ngi nii képp koo xamante ne nii am nga yéene jëf ci daayira daara ñu ngi lay ñaan nga ñëw jàppale ñu si liggéey bi ndax liggéey bi dara tax ko jóg lu dul daara ndax sëñ Moussa dara tax ko jóg lu dul daara liggéeyal daara dong nga ko ñor mu jël alalam di ko def ci daara ñun ñu nekk ay taalibeem dem ba xam ne lii muy def ni ci daara yi kat metti ñu war ko cee mën a jàppale ñu woo suñuy mbokku taalibe ak ñoo xamante ni suñu magu taalibe ñu ciy jàppale ku mel ni bi ma juróom-ñaareelu yoon bi ndax ci ay téere lañ ko tàmbalee woon waaye ren léegi dem nañ ba def soppi ko mu nekk ab dund léegi nag dund bi lii ñuy def nii ñu ngi koy tàmbali waaye xeb nañ ko ndax xam nañ ne kat daara yi ñetti daara ci biir Touba gi dafa metti te Touba Mbella bokk ca kon buñ sañoon képp koo xam ne ni dégg nga liggéey bi nga ñëw jàppale ci te yàlla rek tax ñu ngi woo ñëpp rek waaw kon bu ñuy sant ñi ngi sant ku mel ni sëriñ mbay jaw di sunu magum taalibe Serigne Aline Diouf nga xamante ci seen biir kër la ñuy defee daayira bi ci géejewaay ak ay rakkam mu mel ni ko mel ni ñoom ñoom Abdou Diouf ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom Mbay ak ña ca topp ak ceen soxna ceena ak ay rakkam yu nekk bitim réew Touba gi ñuy sant soxna maam aw Awa Mbàkke di soxna sëriñ bi di doomu am ma sàmba nekk koo xam ne ku jàmbaarale ci liggéey bi lépp loo xamante ni muy màggal tubaa di gàmmu di ziar bi ñu def saa su yegsee li ciy def da ciy def ba jëf ci loo xam ne ni foofu noonu waaw mbooro ñu di gërëm sëñ Abdou Jaxate ak waa këram Thiès ñu gërëm ku mel ni sëñ sëñ Serigne ak ñoom fay àndal ak bitim réew Ousseynou saar Mbaye Samb ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñoo xamante ni bëgguñu sax ñu tudd seen tur kon ñi ngi sant ñëpp di leen ñaanal saa borom jàppale leen yokk seen man yokk seen kàttan ba yéen ji am liggéeyal ko Serigne Touba saa borom yombaleen ko ñu def ko nañu ko bëggee ci barke Cheikh Massamba waaw ku bëgg a dugg ci liggéey bi yomb na ni ngay duggee ci liggéey bi mooy bu dee géejawaay da ngay ñëw da ngay ci liggéey bi da nga ciy tàbbee mooy da ngay gis ku mel ni Fallou Cissé nga jokkoo ak moom bu dee man te nda ca Ndakaaru nga jokkoo ak man ci jëppal ak Liberté 5 ak feneen Mboro Pape Modou Diakhaté nga fa nekkal ñu fa Thiès Pape Modou Diakhaté kii nga fa Serigne Gueye waa kon képp koo xam ne daal bëgg ngaa dugg ci liggéey bi mën ngaa war ci sama numéro 77 647 68 14 bu dee Tigo bi la 33 96 88 80 kon ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm jërë ngeen jëf